mi nga xam ni moo di Sidi Ahmed Mbaye ñu gën nga xamee ci Sidi Mbaye mën nañ ne ci coowu ki nga xam ni moo di Adji Sarr lëmbee na ci loolu takk na ci loolu bëri na ci lool ba ñëpp sax xam ne kenn mënul dem kii di Adji Sarr wala kii nga xam ni moo di Sidi Ahmed Mbaye rawatina taxawaay bi saa su ne bi nga xamee amee na ko te loolee sax moom Sidi Ahmed Mbaye ginnaaw ab pataaral bi nga xam ni yàgg na loolu kenn déggatu ko ci woon ci dara tax na mu daal di toog ba bis daal def li nga xam ni moo di moom indi ab njuj njaajam daal dina xamle bu baax a baax yor na ab kele bi nga xam ni kii di Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr ñoo ci doon def naka sutul noonu maanaam ñoo doon sëy boobu foofule ci vidéo yooyu yor na ko ba tax na sax mu daal ci nax kii di autorité bu nekk ci mim réew di Sénégal ñu bëri nag daal ne kii di Abdou Nguer daf kaa porté wo waaye moom du ci dara ba sax tax na moom Abdou Nguer daal dina wër fépp ci tele yi ngir kat kii di Sidi Ahmed Mbaye xam bu baax te doful gën jàpp ko na ko fexee li nga xam ni moo di 10 millions fépp foo xam ni jaaree na fa ngir kat def plainte def na ko waaye loolee tax na Sidi Ahmed Mbaye moom xam ne woon ni bu baax jotul plainte te mosul jot plainte te fi mu nekkoon mu ngi fa ba léegi dawul demul dikkul benn yoon waaye nag loolee ginnaaw wax yooyu yëpp yëpp mën nañ xoolee kii ne ñoo di section bu recherche bu Thiès tax na moom Sidi Ahmed daal di xamle bu baax a baax loolee koy toppee du weddi benn yoon ne moom la moo ko def te dina xam ni lu mu xamle daal moo di dix millions francs xam ne moo di delloo ko ci yooyu delloo muy def moom jamono gi ñu waxee ak yéen daal dina avancé li nga xam ni moo yemoo ci 2 millions ginnaaw bu ñu wooree ba pare dina mottali li nga xam ni moo di 8 millions yéeg bu ko defee mot 10 millions ci boobu jamono mu nekk mbir bi nga xam ni dara taxul jug lii lu dul yàq dara kii di Ousmane Sonko ba sax tax na ñu bëri li ñuy wax ci Sénégal mooy daal di am mooy fexe la tout ba Ousmane Sonko milé du bokk benn yoon ci élection 2024 yi loolu rek lañ ci jublu ba tax na tey jii ni ñu mun a def ba yàq dara ñoo ko doon def waaye kat moom njiitul Pastef bi dafa mel ni saa su bu ñu bëggee yàq deram foofee la deram di gën di set tax na sax moom Sidi mun nañ ne jégéenam bi xaritam bi nawleem bii la soxnaam si la daal di wujo tur mun nañ ne kenn déggatu ko ci moom di métti ak nakarlu ndax kat xamle woon na si yàggul dara kii dafa nekkoon ci ab benn hôpital bi nga xam ne demoon na fa ginnaaw bu mu feebaree waaye kat hôpital boobu da kaa rejeté bu baax a baax muy ñaawlu taxawaay bi nga xam ni Sénégalais am nañ ko jëmale ko ci moom te loolee sax tax na a dossier bi jamono jooju mën nañ ne ñaari sotteem yooyu ba léegi kenn xamul fan la Adji féete waaye daal lu mën a am ba am njort nañu bu baax a baax mu ngi ci mim réew di Sénégal gi lee waaye kat ki nga xam ni moo di Sidi Ahmed Mbaye ana moo tax ñu gaaw teel kaa bàyyi ndax kat li nga xam ni moo di ñëpp di wax parce tey jii Sidi Ahmed Mbaye teeku ci prison bi ngir la ndax kat suñ ko téewalee mën na am bët na mbóot yi mu xam ci mim te boobaa dina sulli